إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله قد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة زادا للمسلم في طريق سيره إلى الله يجد فيها راحته وأنسه فتصله بربه راضيا مرضيا إن الله تعالى عظم شأن الصلاة فقد أوجبها على المكلفين في كل حال على الرجل والمرأة على الصحيح والمريض على المقيم والمسافر على الآمن والخائف ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى هذا التمييز لغير الصلاه لا زكاة ولا صيام ولا حج إن من دلائل تعظيم قدر الصلاة في الإسلام أن أمر الله بالمحافظة عليها في حال الخوف قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وإن من صور اهتمام الإسلام بالصلاة أنه علق, علق الكفر على تركها والعياذ بالله قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وقال الأهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أداء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا mbokk yi ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala ñi ngi seede ne yàlla rek moo yeyoo ñu koy jaamu ñi ngi seede ne muhammad jaamam la bu mu yónni woon ci ñun ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla subhanahu wa taala sax ci loolu ba dee fekk leen ci su loolu wéyee xam leen ne julli gi ñuy waajal nekk na mbir boo xam ne sunu borom yàlla def na ko muy yóbbalu jullit yóbbalam ci yoon wii mu jaar di dem ana jullit foo jëm yaa ngi jëm ci sa boroom subhanahu wa taala loolee nag ci diggante boobu julli mooy lii dalal jullit julli mooy lii wéttali jullit ba yeggale ko ci boroomam yàlla gërëm ko mu gërëm lam fa fekk sunu boroom yàlla subhanahu wa taala màggal ko farataal ko ci képp ku majeur na doon góor nga wala nga nekk jigéen dangaa wér wala dangaa feebar dangaa sax wala dangaa tukki yaa ngi ci jàmm wala yaa ngi ci tiitaange ci xeex sunu borom yàlla subhanahu wa taala ràññee googu defelu ko beneen jaamu yàlla budul julli du zakat lu néew ci jullit ñi ñoo koy def du koor boo feebaree teggeeku na la du at makka looloo gën a néew ña koy def bokk na ci màggaay boo xam ne julli am na ko sunu borom yàlla moo santaane ne même bu dee da ngeen a nekk ci tiitaange nekk ci biir geer ngalawaay bu leen jàpp bàyyi julli ay yow jullit lépp loo xam ne yaa nga ca jàpp ne lii kat moom mën naa yeggalee ba pare doo ko julli même bu doon damay faat waxtu wa sa borom yàlla déglul li mu wax ab yeneen tam ey yéen wattu leen jullit ñi wattu leen julli yéen boole seen ca wattu la nga xam ne mooy julli gi gën a jafe muy julli takkusaan di salaatul wusta ca it ngeen taxaw ñeel yàlla di toroxlul yàlla subhanahu wa taala su dee da ngeen ne doon aji tiit nekk ci guerre na ngeen julli fekk yéen a ngi dox fa rijaala di julli fekk yéen a ngi dox te wallahi sahabatul kiram def nañ ko keroog qadisiya day leen julli fekk yéen a ngi ci seen kaw fas di julli même bu dee mun leen a wàcc julli leen seen kaw fas lu waral lii mooy sunu borom yàlla moo ne inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquta julli daa nekk ci jullit ñi benn heure précise boo xam ne waroo koo def fekk jotul waroo koo bàyyi mu wees kon même bu doon dañoo roofaloo ak yéefér yi di dooroon ke ay jaasi bu doon tey bal yaa ngi takk gauche droite du tee yow jullit na nga julli na nga mën a julli même bu doon da ngay taxaw say rukko ak sujud nga koy mépp ci sa bopp di tudd yàlla ala kulli xaalul bàyyi julli googu mbokk loolu doy na sëkk ci wone lan mooy màggaayu julli benn ngoog waaye doy na sëkk ci wone lan mooy màggaayu julli te waxtu wa mbokk jullit sunu borom yàlla melal na julli ci melokaan yoo xam ne yu màgg la bokk na ci loolu lii di ngëmu doomu aadama ak kéeféeram yàllaan ko ak ci julli sunu borom yàlla ne ña nga xam ne ñoo fi jiitu woon dey ca lam leen digal moom la ñu digal digaluma leen lu dul ñu jaamu yàlla bañ koo bokkaaleeg dara taxawal julli joxe zakkaat lii rek mooy diine bu jub lii la yàlla digle ci diine sunu borom yàlla wëlbatiku ne mushrikuun yi ngeen di xeexal bu dee nangu nañoo dugg ci lislaam nangu nañoo julli nangoo joxe zakat kon day seeni doomi ndey lañu ci diine loolu muy wane na mbokk ku dul julli yow jullit amoo droit wax ko sama mbokkum jullit ku dul julli du sa mbokk jullit fa in taabu wa aqamu salaa wa aatu zakat bu boobaa nag fa ixwaanukum fi diin mbokk jullit sunu borom yàlla subhanahu wa taala bi mu waxee lii yeneen bi alayhi salaatu wasalaam teg na ca ne lay diggante baaraas bi dox suñu diggante nit ñi mooy la nga xamee ne mooy julli képp koo xam ne bàyyi nga ko ku mel noonu weddi nga sa boroom subhaanahu wa taala loolee mbokk di mbir boo xam ne nañ ci bàyyi xel rawatina kilifa yi nga xam ne dañoo am ak njaboot nañ góorgóorlu ci ni bari na tubaab bi bi mu duggee ci ñun indil ñu ay façon doxalin yu bees ci wàllu njàngin mi ci wàllu colin gi lu bari ci nit ñi ñi ngi bàyyi julli bàyyi goo xam ne bàyyi càggante moo tax ñu koy bàyyi donte ne loolu danger munta passé loolu waaye mbokk dem nañ ba suñu jamono encore mu am ay ñeneen ñoo xam ne ñi ngi woo nit ñi ci turu lislaam ay junni junni xale topp leen xale yooyu bokk na lu ñu dind ci seeni xol mooy taxawal julli juróom changé leen ko ay tëgg ak fecci ak a naan kafeeg lu kenn xamul jàpp na loolu moo gën a màgg la nga xam ne mooy julli juróom képp koo xam ne am na doom bu mel noonu na xam ne doomam boobu kéeféer la julli ku ko bàyyi yéeféer nga gannaaw bàyyi julli googee mooy bañ koo des am na beneen danger danger bu mooy sunu borom yàlla def ne nit ñu baax ñu de ba ñu jàllee seen njaboot ga ñëw seen gannaaw dañoo neenal julli sàgge na ko topp seeni bànneex ku mel ne Omar ibnul Abdul Aziz bokk na lu mu daan wax ne wallahi bàyyiwuñu julli waaye dañoo sàgge na julli nu mu leen neexe lañ ko doon jullee mbokk ndekete ku mel noonu sunu borom mu ne fa sawfa yalqawna xëyya xal sanaa tàbb ci xëy ibne masud nee na benn xur la bu nekk fii naari jahannama wal iyaasu billah ñeel ka nga xam ne day sàggi na julli na am sunu borom yàlla moo ne fa waylun lil musallin allazina hum an salaatihim saahuun waylun alkaange benn xur bu rëy ci biir sawara ñeel na ñuy julli ñeen na ñuy julli ñan suñu borom mooy ñi nga xam ne dañuy sàggane seen julli nu mu leen neexee lañ koy jullee ay yow mbokk jullit góor góor góorlul sa kemtaleel kattan jéem a xool la nga xamee ni nii mooy sa njaboot ana ñan ñoo ca nekk di julli ak ñu dul julli sunu borom subhanahu wa taala gis nañu ne wax nañu ne wa'mur ahlaka bis-salaa wastabir alayha laa nasaluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa na nga digal sa njaboot ñu julli képp koo xam ne sa kilifteef la nekk na nga ko digal mu julli bul nangu mukk sa kër nit fanaan fa fajar nga julliwul abadan bul nangu loolu góor laam jigéen laam bindaan laam kum mën a doon sunu borom mu ne digal leen ñu julli te yow nga sax ci julli googee xamal ne wërsëg laajuma la ko man yàlla maa lay wërsëgal te mujj gu rafet ñi ragal yàlla ñoo koy am su dee da ngaa yërëm njaboot gi su dee ne da ngaa am complexe ci ñoom kaay déglu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom mas na ko boole ak jibril ci xadis bu gudd di ko won ñi nga xam ne dañoo nekk barzax nuñ fay nekke mbokk doomu aadama am nga ñetti dund dund bu njëkk gi mooy bu gàtt gi ñu nekk di dund àdduna am na beneen dund gu amul fu mu yem mooy alaxira am na benn bu nekk ci digg bi mooy barzak te mooy bàmmeel loolee mën na duri junni at wala lu ko ëpp yeneen ci béyki saxaabaam def nañ ci bàmmeel junni at ak ñeenti téeméer waaye xoolal nit ñi nañ nekk seen biir bàmmeel yeneen ci bi alayhi salaam am na jibril ñu gis benn waay ma nga tëdd am na ku ko tiim ak xeer bu rëy su ñëwee dóor bat bi bat bi tasaaroo xeer bi dali fële balaa dem jëli xeer bi ñëw fekk bopp bi baaxaat mu dóoraat mu tasaaroo ma ne jibril waaw kii moom lu mu def mu ne kii de sa xeet la bokk nga xam ne jàngoon nañ alquran ba pare di bàyyi di nelaw waxtu julli ñi daan nelaw waxtu julli nii la ñuy nekkee barzaq ba yàlla di dekkal ay jaamam loolu tax moo ko jullit waa ji nga xam ne day noddal fajar nga xam ne mooy waxtu nelaw yéen ñépp dégg ngeen lu mu cay dolli assalaatu xayrun min annawm ay waay jóg leen julli loolu moo gën seen nelaw yi mbokk bu dee da ngaa bëgg am njaboot gu baax am njaboot gu barkeel waxuma ko bëri xaalis am njaboot gu barkeel ngan la waay saxal leen ci julli julli googu rek mooy tax ñu mën a baax julli rek mooy tax ñu mën a bàyyi lu bon inna salaata tanha anil fahshai wal munkar wala zikrullahi akbar julli mooy dox diggante nit ki ak lépp lu ñaaw ak lépp loo xam ne nii dañ koo bañ te fàttaliku yàlla ga ngay fàttaliku ci julli gën naa màgg nga jóge fa di def lu ñaaw looloo tax xoolal ñu sàgg na julli googe nu mu leen neex la ñuy njaaloo nu mu leen neex la ñuy tooñe nu mu leen neex la ñuy jëri alali jaamur loolu mbokku képp ku ñu xam julli xam nañ ne xéewalu àdduna avant xéewalu alaxira amma bu dee ne la nga xamee ne waa ji julli waaye nag julli googee da ngay gis ne du ko yàqal ay programme am te bokk na mbokk benn musiba boo xam ne nii day am ci doomu aadama yi mooy même bu dee ne julli gi moom dañ koy def it lii moom du yàq ci seeni mbir dara kaa ñu déglu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne bàyyi ne julli takkusaan ba mu romb julliwu ko ka annama wutira ahluhu wa maalu mi ngi mel ne waajoo xam ne daa tukki woon ñëw ñu ne ko sa alal yépp takk na sa njaboot gépp dee nañu nee na ku mel noonu musiba ba kay daal su xamoon julli takkusaan ga ma fàtt day loolu moo gën a garaaw waaye ay yéen bokk jullit xool leen yéen ñi nga xam ne da ngeen di tukki ana lan ngeen di gis mooy kaar yooyu nga xam ne moo fiy jóge te am na ci sax léeg-léeg yu ñuy askane ak ay ay sëriñ da ngay gis kaar bu def cinquante personnes wallahi benn mbokk bu nekk ci mbooloo mi nettali na ma yàggul dara kaar baa ngay jëm Louga mu ne mbokk chauffeur man kat damay bëgg julli chauffeur bi na ko waa ñun julli nañ ba pare te mooy avant fajar bi jot ci Dakar yeewu na ñoom julli seen julli daal di dugg ci biir oto bi wallahi mbokk jullit waa ji nga xam ne dafa julli ca fajar jotul moo ko bàyyi ba fajar paasu ni julli ñoo yem ñoom ñépp def nañ bakkaar boo xam ne nii kenn xamul nu mu toll waaye nee na la ci gën a yéeme ba mu ko insisté ba ñaan ko dañoo dem ba jom ñaajo bi chauffeur bi droité am lu mu doon def ne eh ana kii julli na wàcc julli nee na moom dong moo wàcc ci kaar bi julli ñetti des ñépp dañoo toog ca mën ngaa waat ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent ba ay jullit lañu te mooy ñu bëri jàpp nañ ne bu ñuy tukki seen yoon nekkul ci julli waaw mbokk jullit ndax yàgg ñoo gis kaar bi daal bu mujj ab policier na ko arrêté téye ko fa loo xam ne moo gën a yàggub julli ndax gisuñu kaar bi daal bu mujj benn pën a toj ñu am fa loo xam ne moo gën a yàgg julli ndax gisuñu kaar bu dem ba puut ñu ne gars yi may ni ñu jënd ay mango ki orange ci loo xam ne moo gën a yàgg julli mooy yéen jullit ñi bu ngeen dee def loolu lu tax di ngeen ñaan ñu may leen ngeen julli waxtu woowu rawatina ne xooma ku nekk ku jege dee waaye ana ku gën a jege dee ku nekk ci ab autoroute nekk ci xott buy daw ak yow ngay romb ay xott yu daw ñoom tamit yow yaa war a gënoon a nangul sa borom gënoon a jébbulu sa borom ca ka nga xam ne dafa nekk ci biir këram doonte ne dee moom kenn mënu ko laqatu ay yéen ba ko julit na ngeen xam ne julli mooy ndimbalu julit ci kaw suuf suñu borom yàlla moo ne wastainu bi sabri wa salaa dee leen dimbali koo muñ dee leen dimbali koo julli looloo tax lu essentiel la ngay wax ci biir julli ga mooy yàlla iyaaka naabudu wa iyaaka nastain amul benn julli booy julli tari woo fatiha lu dul julli ga baaxul amul fatiha munoo koo tari ca waxoo ca yàlla yàlla yow rek la ñuy jaamu yow rek la ñuy dimbali koo looloo tax mbokk diine lislaam mi ngi nii wax nañ ne sànq booy feebaree del julli te képp ko am mbokk bu tëdd lalu hôpital ngalawaay bu koy seeti na ko yóbbaaleel xelu tiim na ko sant muy julli tant que sa xel mi nga ànd ak yow julli googu du la wàcc abadan loolee yonent bi jàngalee nañ koy defe mooy toogal mënuloo tëddal loole mi ngi noonu islam jàngal nañu bu dee da ngay tukki suñu borom baal na la au lieu de ñeenti rakka mën ngaa julli ñaari rakka allahuma lu dul fajar ak timis kenn du ko wàññi islam moo ñu jàngal ci ne ajjuma ju nekk yéen waa gox bi dajaleen ci jumaa ji ngeen julli islam moo ñu jàngal su ngeen wooree ba pare su ngeen tabaskee ba pare loolee bisu feet la bisu xéewal la waaye ubbee leen ko daje julli ñaari rakka islam moo ñu jàngal heure boo xamee dem nañ ba ndox ñàkk nañu dem waxuñu ñuy jël di sarxe ay sukkar ak mbiskit waaye na ñépp génn ñu toroxlu ci kanamu borom bi julli ñaan yàlla islam moo ñu jàngal su dee ne jant bi dañ koo jàpp jóg leen julli ñaan yàlla islam moo ñu jàngal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana ida adabahu shay'un fazia ila salaa yonent bi lu ko masan dikkal day wooti jëmee ci julli looloo tax problème bu masan am ci islam danaan arixna biha ya bilal ay bilaal dalal ñu ci lii su ko defee bilaal daal di noddu saxaaba yi ñëw ñu julli ñaan yàlla looloo tax am na lu ñuy tuddee julli istixaara ah istixaara mooy lan tànnuloo sa boroom heure booy dugg ci mbir sikk ca sàkk julli ñaari rakka ñaan yàlla tànnal la ca la gën mbokk li nga xam ne yéen ñépp xam ngeen ko mooy doomu aadama bu dee lañ koy mujj def mooy dañ koy teg daal di koy jullee kon julli gi mi ngi noonu heure bu bànneex ñëwee da ngay julli heure bu diis ñëwee da ngay julli jamono bi ngay dund da ngay julli jamono bi ngay dee dañ laa war a julli looloo tax nañ góor góorlu ci jàpp ko nañ góor góorlu ci fonk ko nañ góor góorlu ci ñaaxaate ko yal na yàlla boole di ci ñuy taxawal julli te loolu da ngeen ko war di ñaan ibrahima alayhi salaam moo ko waxoon rabbi ij'alni muqima salaati wa min zurriyati yàlla yàlla nag ma def may taxawal julli koo ma wërsëgal ci njaboot yàlla yàlla nag ko def muy ab jullikat yàlla yàlla def ñu ay jullikat def suñu njaboot ay jullikat saxal ñu ci ba ba dee fekk ñu ca wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ibadallah فإن للصلاة منزلة لا لا لا تعدلها منزلة منزلة أي عبادة أخرى فهي فريدة دائمة لا تسقط حتى يأتيك اليقين وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وهي آخر ما يفقد من الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقدن أرى الإسلام أروة أروة فكلما انتقدت أروة تشب- تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقدا الحكم وآخرهن الصلاة وقد تساهل أناس في أمر الصلاة في المساجد والله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وهو نص في وجوب صلاة الجماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه أي المقدلت ñu ngi yeesal santaat sunu borom subhanahu wa taala ñu ngi koy ñaan mu julli sunu yenente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu xam leen ne julli gi ñu yàlla wërsëgal amul benn jaamu yàlla bu ko mën a remplacer abadan amul benn jaamu yàlla bu toll ne moom abadan bokk na ay njuumte nga gis ay nit ñu nekk ci benn mbir soo leen waxee ñu ne ah li ñuy def moog julli ñoo yem na doon loolu conférence la wala lu mu mën a doon mbokk julli dara melul ne moom julli dara tollul ne moom nañu xam ne julli googu itamit du teggeeku jullit niñ ko waxe woon abadan kaka yàlla teggil mooy jigéen boo xam ne nii dafa gis baax wala jigéen boo xam ne daa nekk ci deret bi wasin keneen ku dul kii tànk yaa ngi sa xel julli gi du teggeeku ci sa kaw abadan suñu demee yowmal qiyaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na la yàlla di njëkk a xool ci jëfi doomu aadama mooy julli su dee julli nga baax na jaarale na ko fa mu ko war a jaarale sunu borom ne tëj leen dossier bi bal leen ko li ci des amma bu dee xool nañ julli nga baaxul sunu borom mun a xollil dossier yi yépp te ku ñu xool say dossier daañu la mbugal yal na yàlla sutural ñu yawmal qiyaama mbokk julli googu nañu xam ne mooy li ñuy mujj a réeral ci diine lislaam li ñuy mujj a sànq yonent bi alayhi salaam nee na doomu aadama yi daal di sànq njàppul lislaam njàpp bu ñu sànq jàpp ca ba ca des nee na ba ñuy jëkk a sànq mooy àtte woonu yàlla wàcce tey da ngay dem ci mbooloom lislaam ne leen ay yéen réew mii day nañu xam ne réewum yàlla la du réewu kenn ci jaamu yàlla yi ñi fi dëkk ay jaamu yàlla lañu dañ leen di war a àttee la yàlla wàcce woon ci ñun comme nañ koy war a àtte boo Arabie Saoudite da ngay gis ne intellectuel yu bari tey boo leen ko waxee dañuy jàpp ne ah loolu daal wax la yoo xam ne hors sujet la loolu du lu ñuy wax mbokk nañu xam ne ni mu nekk farata lii di koor ak aj makka la nekkee woon farata ñu àtte woon way lislaam ci kaw Sénégal àtte woo ko ci kaw fu mu mën a doon lu tax mooy jaami yàlla lañu ca yowmal qiyaama soo bañee atteb yàlla atte la ci àdduna yi soo demee àllaaxira moom atteb yàlla moo lay atte nee na la ñuy jëkk a sànni mooy atte woon yàlla wàcce gannaaw ba dañ sànni ak makka dañ sànni koor dañ sànni lu nekk ba doomu aadama yi dañuy mujj sànni muy julli da ngay gis ay daan dem ba jël mujj jamono ñoo xam ne dañ naan ay jullit lañu mais boo waxee ñu jullit lañu ah loolu moom mën naa ñàkk loolu moom du dara mbokk lii dañuy gis ne musiba la boo xam ne ku nekk ci ñun war na ci bàyyi xel sunu borom yàlla def ne fexe leen ba seen alal wala seen doom bu mu dox seen diggante ak julli bu ngeen defee loolu day na ngeen xamee ne yéen ak yi perte ngeen loolu nag mbokk jullit julli dafa am ay daraja bokk na ba ci gën a mag mooy nga bokk ci jullikat yi waaye wax nañu sànqit ne bokk ci jullikat yi taxul nga mucc la lay tax a mucc mooy ngay julli ca waxtu wa waaye nga la waaye wi bu dee góor nga xamal ne sa borom yàlla subhanahu wa taala daa farataal ci yow ngay julli ji ca jàkka ja sunu borom yàlla moo ne na ngeen taxawal julli di joxe azaka ca di rukkoo ànd ak ñuy rukkoo loolee borom xam-xam yi dañu ne benn tegtal bu leer la ci ne julli ji ca jàkka ja loolee farata la la koy feddali mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax bis sahaaba yi man day daaw naa toog di mébét ne man waaw téemaa digle ñu noddal julli gi bu ñu noddee ba pare ma ne na keneen jiite man ma ànd ak ay góor ñoo xam ne ay matt lañu yor may wër këru madina yi ku ma fekk sa biir kër ma taal kër gi sa kaw mu ne lii de doon naa ko xalaat mbokk yonent bi ak yërmandeem su demee bay xalaat loolu nga xam ne loolu musiba mënu ko passé am na borom xam-xam yu naan la ko ca génne mooy jigéen ñi ak xale ya nga xam ne ñoom julli mbooloo ba nekkul lu leen war mbokk nañu xam ne dem ca jàkka ji di julli loolee moo nekkoon mandarga yonent bi ak sahabaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Mas'ud nee na ca jamonoom day kenn rek moo daan tar bi julli mooy waa ji feebar ba ñépp xam ne daa feebar ak am naafiq bu ñépp xam ne naafiq la ca mu ne xattaa nooñu feebar léeg la nga gis koo xam ne daana wut ku ko lëng mu ñëw ba taxaw ci biir sappe bi ngiree fekk julli mbooloo doonte ne naafiq yooyu liñ doon nekk nekk ay naafiq daanañ dem tisbaar takkusaan ak timis ndax loolee dafa leeroon nit ñi di leen gis yonent bi alayhi salaam ne julli gi gën a tar ci naafiq mooy julli gee ak julli fajar doonte ne bu ñu xamoon li nekk ci ñaari julli yooyu ci xéewal même bu doon dañoo feebar bay ndargu sax daan raame seen kër ba dugg ci jàkka ji ngir fekk ñaari julli yooyee moo ana yow mi nga xam ne kenn dalu la looloo tax boroom xam-xam yi bokk na li ñuy wax te di ko jële ci Abdullah ibnu Abbas képp koo xam ne dangaa nekk dëkkandoo jàkka bu ñu noddee nodd gi ñëw ci yow soo jullee sa kër julli ga baaxul nañu góorgóorlu mbokk delluwaat ci néegu borom bi subhanahu wa taala taxawal julli comme ni ñu ko yàlla sante waaye nga la waay bu la yàlla baaxee bokk nga ci ñuy julli da nga julli ca waxtu wa da nga dem ca jàkka ja des na it beneen mbir boo xam ne lu bari ci nit ñi dañ caa daanu rawatina fii ci Sénégal mooy mbokk julli këpp këpp këpp këpp boo rukoo rukoo ba du mat boo sigee sigi bu du mat boo sujjootee doo fa dal yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog na ca jàkkaam ja benn waay ñëw julli ba pare nuyu ko mu ne ko demal julli julli woo mu dem julli waat mu ne ko demal julli julli woo ba mu def ko ñetti yoon yonent bi alayhi salaam da koo jàngal ca mooy lan waa ji da doon këpp këpp sëgg sigi loolee mbokk ku koy def yàpp julliwul yéen a yem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal ne sallu kama raaytumuni usalli bu ngeen dee julli julli leen ni ngeen ma gise ma koy jullee taxawal taxawaay bu jub jàngal la nga xam ne jàng bu baax la rukool ba sa yax yépp dal nga sabbal sa boroom siggil ba taxaw ba ku la seen xam ne yow ko taxaw nga jomm heure booy sujuut juróom-ñaari cër la ñuy sujuute sa ñaari loxo yi bu ko jël sànni sa gannaaw wala say poot teg ko mu tolloo ak say nopp nga yëkkati say la nga xamee ni mooy say xasab ay say loxo bañ koo teg ci suuf waaye la nga xamee ne nii mooy fi ngay takk montre jëm suuf loolu rek moo war a tege nga góorgóorlu sa oom yi ak sa tetu tànk yi daal di koy teqale lii mooy sujud bu rafet ba yonent bi alayhi salaam nga xam ne yemul woon ci saxaaba yi di leen ko wax bal julli na ci kaw minbar ba sax ngir jàngale loolee mbokk gannaaw loolu nañ góorgóorlu ci sunu kéemtalal kàttan xam ne julli gii bokk na gannaaw bañ koy def di ko def ca waxtu wa di ko def ca mbooloo ma jëf ya rafet am na leneen lu am solo lool mooy moteur ba nga xam ne moo koy yóbbu mbokk oto lum rafet rafet moteur ba baaxul du sori moteur ba yóbbu julli mooy sa xol bi nga teewal ko ni nga teewale sa jëmm di xeexal sa bakkan sa kéemtalaal kattan sunu boroom sunu yeneen ci alayhi salaam nee na nit ki dana julli ba pare ñu bindal ko benn ci fukk yom waroon a am dana am kenn ku julli ba pare ñu bindal ko ñaar am na kuy julli ñu bindal ko juróom-ñeent ka nga xam ne mooy matal mooy ki nga xam ne bi mu taxawee ne allahu akbar ba baa muy wax asalaamaaleykum xelam yépp mi ngi koy def ci biir julli googee yal na yàlla yombal ko ci ñun loolee mbokk bokk na la la ciy dimbali boo taxawee nga xam ne yaa ngi taxaw sa kanamu boroom bi nga xam ne moo la sàkk moo yor sa njëriñ moo yor sa lor xéewal bu ko neex yokk ko ci yow xéewal bu ko neex jël ko nga daal di koy màggal ci allahu akbar waaye bokk na ci tamit la lay dimbali mooy nga jéem a jàng li ngay wax ak sa borom lu mu doon wareef la ci mboolem góor ñi ak jigéen ñu xam lan mooy fatiha lan mooy sami allahu liman hamida xam taayu lu muy firi bokk na ci it nga fàttaliku ne tey lay taxaw nga sa kanamu boroom waaye yowmal qiyaama mi ngi ñëw malaaka yi daal di jiital taxawal la sa kanamu boroom bokk na ci ngay bàyyi xel ne tey de yaa ngi nii di taxaw di julli waaye mën na am julli gi mooy dernier julli bi ngay julli ci kaw suuf mbokk julli mi ngi noonu sa màggaay bi nga am ci lislaam sa daraja ci lislaam sa sopp ci lislaam mi ngi toll ci gëdd gi nga jox sa julli noonu rek sa lislaam di toll waaye mbokk julli mi ngi nii nekkul xéewulu àllaaxira kese abadan julli dafa doon luy defar say cër julli day jeexital ci sa yuur julli day jeexital ci sa xol julli day féexal la nga xam ne mooy sa bakkan dalay teggil ay diis julli day barkeel sa dund barkeel lépp loo xam ne am nga ko ci alal ak njaboot julli day jur la nga xam ne moom mooy cofeel diggante jullit ñi lii lépp mbokk dañuy gis ne ay xéewal la yoo xam ne nii loo ca gën a bëri la ci ay farata ak naafila say xéewal gën a bëri àdduna ak alaxira loo ko gën a sàggane sàggane nga sa bopp àdduna ak alaxira yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci ñuy julli di ko jullee naka yonent bi alayhi salaam ak sahabaam doon defee yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu yal na yàlla may ñu lépp luy xéewalu julli ci àdduna ak alaxira yal na yàlla defal ko sunu njaboot saxal leen ci julli daal di dox seen diggante lépp lu leen koy yàqal yal na yàlla defal ñu àjjana muy sunu wàccuwaay may ñu muñ gu rafet jéggal ñu mbool mi bàkkaar yoo ak suñuy tool yi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين